ma ne ko la preuve mais loolu tam naa ko wax fi ñii dofu passé fi mouton yi di yuuxu naan lonage lonage nañ dem lonage man Dora Balde ba mu ñëwee salaamaaleykum loolu la jël arrêté sama contrat contrat ba ñu ngi si bi bi bi yéen a fa nekk tout a tout fait xam la table dof yi di yuuxu contrat lonage man Dora Balde ba mu ne salaamaaleykum la dagg sama contrat. def fa lu ko neex. def fa lu ko saf. ñoom bu ñu ñoom topp rek. ñoom ñoom dëgg-dëgg dëgg-dëgg bu fekkoon ne ñii. gis nga ñii gis nga ñii ñii laa la wax xam nga moo metti euh, duudu injustice bu nekk Sénégal. walaay la si te nag Diop li tax may la homme waaye la Diop li ma xam du homme d'état parce que administration civile la jëloon ndaare ca jàng ko ba ba jotee moom jëloon ndaare. Mm-hmm. ma la. Doura Balde gis nga ñoom bu dee bu dee jub jub banti ñu ne dañuy lijjanti gestion waaye yow Lat Diop ba mu demee Doura moo fa Doura nag moo doon mais Doura lu mu mais dee dee naa la Doura Balde dama ne Doura Balde bu leen fàtte ne fan la jógee Pastef la jógee moo doon seen trésorier moo doon trésorier Pastef benn deuxièmement Doura il a tout fait pour neexal ñi pour bañ a jóge l'ONAS mais Doura ñoom ñoom comme nee na dañuy jub jubal jubanti mais nañu lijjanti Doura Balde ba mu neex sara amaane ko l'ONAS ba ni mu fay jógee qu'est-ce qu'il a fait là bu ñu mënee lijjanti rek. waaw ah. li def foofu pourquoi et puis pourquoi ñoom ñu ne salaamaaleykum mm. salaam ñu bàyyi la dernière gestion tëb Doura ñu déclenché la Diop waaw loolu lan la. en moins d'un an. moo ah. fi jógee. Ah. léegi yéen ngeen bàyyi Doura Balde. Eh, tëb Doura ñëw ci la ñi nga xam moom la remplacé te Doura ba mu ne salaamaaleykum la commencé songal songal ak. ci moom lañ njëkk bëgg Lat di nekk ministre des sports benn ñoom ñaar ñu bokk noo nekk ci Amadou Ba ci laa woo Lat mais Lat xol lay demee ma ne ko Lat xool dama ko woo Lat dama ko convoqué sama kër ma ne ko grand ma ne ko grand sarax ma nga ñëw sama kër mu ñëw ndax man ku ne xam ne du ma dem sama kër gi laay waxee ma ne ko grand kaay mu ñëw ma tegal ko fee yëpp muy teg ma ma non non Dora moo dof rek jaloux mais demee noonu non non Amadou mënu ko nekku ci demewul noonu man xam nga lu tax xam nga man sama diggante yow lan la maintenant man xam nga man yéen dof ngeen ma jàppee wax man bal la damaa bëgg nga jàpp lii suba ni ma la xamee yaa ñëwaat na mu tu as raison te noonu la demee la ba mu demee doxal ba ci kanam daf ma wone ne ma tey est-ce ma la jox dibi ma ne la mu ne ma li nga wax yëpp la kon addu nii man naa fan yii yëpp man démb laa soulagé te fii laa leen di bette démb dañ ko def mandat de dama soulagé xam nga dama soulagé da dèjà dama ko yërëmoon ñi mëntal ko ndax ni nga ko doon jéema heureusement ba xam nga passé commande yomb na waaye exécution baa jafe mm-hmm. ñoom dañoo bëgg ñu toroxal Lat Diop ko dañ ko bëgg a toroxal sax waaye kilifa ku ko xam ne yàlla moo ko def kilifa mais boo ko dee jàqare dafay samp rigueur ba nga xam li nga bëggoon nar naroon ci moom def les policiers sont très bien compétents te ça fexe naa parce que maa ngi doon waxante ak via les avocats ma ne ko gannaaw maa ça va mu ne non la non t'inquiète clean ça va ba pare ma ni comme ni may wax rek xëy na am na lépp loo xam ne mais dama jàppoon li sama digantek lat ak man lat fi ma ko teg ma ne dëgg bi yàlla dina ko wane moy ñu dem yóbbu amuñu ben preuve hmm. ñu yóbbu ko ci ni koy moo tax dama sant yàlla mhm. dina siggi jàmbaar la bette bette ba la gar la gàmmi la mhm. dina jóg ci lii te nee naa ko sa leadership koy conforté ci lat nag comme ni ma wax rek euh, ñun dinañ góorgóorlu ba tant que yàlla mi ñu koy may en attendant ñu ñu yóbbu te même bu ñu yóbboo na ñëpp taalaat suñuy live di ko tegaat di seetaan ndax fii nguuru yàlla moo dul jeex mm-hmm. muy man a ñu mel ne man ñu ne ñoom la bi ak ñu toog fii ci plateau bi usmaan Ousmane Sonko feregel ko ñeent lenn